fas yéene cee ñëw nag indi ci ay leeral muy mouvement ànd xeex président Macky sàll ci département de Mbacké loolu nag dafa concerné Sénégal gi yëpp ba mujj concerné na àdduna bi yëpp fépp foo xamante ni ab sénégalais ma nga fa ña nga fay woote ngir taxaw ànd ak ñun jàppale nu ci dooleel nu ci. li nag ab coalition la boo xam ne samp na tey fii ci Touba ngir xamal président Macky Sall ne ko Touba nee na déedéet. li ñu bëgg du ñu ko def tey du ñu ko def ëllëg ñoo lank ñoo bañ taxaw nañ temm nag ci li nga xamante ni moom la président taxaw bëgg koo def Touba dootuñ ko nangu tey dootuñ ko nangu ëllëg ndaw yi nga xam ne moom lañ yabal ñoom ñu fiy liggéey nañu arrêté yi ñuy def ñun la ñu nekkoon duñ ci mas a jóg Touba d'accordul te du mas a d'accord kuréel gi nag taxaw na euh, ci département bi euh, li nga xamante ni nag moom lañ ci def mooy 14 commune yi wër monde rural bi fenn fu ci nekk am nañ fa ku fa représenté incha allah rabbi ni ñu ñëwee Touba tey tàmbali ko danañ wër 14 communes yëpp fenn fu ci nekk ñu installé fa su département bi matee ñu doog dugg nag ci région par région région yi nekk Sénégal yëpp danañ fa dem installé fa su matee nag ñu continuer dugg ci bitim réew fenn fu ci nekk danañ fa dem installé mouvement bi mu taxaw ñu maase bokk ndey bokk baay xuloowuñ xeexuñ parce que li ñu bëgg nag ñoo ko mën a fajal suñu bopp muy ñu maase xeex président Macky Sall jëli ko ci ñi nga xamante ni ñoo composé groupe euh, parti yëpp la yëpp mën naa ci bañ tudd benn parti mais parti yëpp ñëw na ak ñi nga xam ne ay mouvement lañ ak ñi nga xamante ni ay kuréel la ba ci ay daayira ñëw nañ jàppale ñu ci li nga xamante ni moom la ñuy def tey jii. ñoom dëgg rek moo leen ñor te xam nañ ne lii lii ñu woote mooy dëgg moo tax ñoom ñu bàyyi leen jàppoon ñëw ànd ak ñun ci lii ñuy def si nii ndaxte xam nañ ne dëgg nag mooy dëgg président Macky Sall fi réew mi toll réew mi dafa metti ñëpp dañ ne ko Touba nangul nañ la Touba lañ fañ nekkoon dañ ko yokk ñun ay ndaw lañ yoo xamante dañoo jug pour jug ngir population bi moo nu tax a jug lii jógaluñ ko ma sàmba defaluñ ma dem askan wi moo ko moom biñ koy installé nag dañoo ko préparé woon pour mu nekk ci département bi mais fi mu toll nii dafa wër Sénégal gi yëpp la ni ñu ñëwee Touba tàmbali danañ war raison yëpp raison par raison dem fa installé fa bureau taxawal pour ñu marché def doole pour président Macky Sall abal nu ci jàmm ak salaam du ñu toj du ñu xuloo du ñu xeex mais li ñu bëgg ñoo xam te ñu ngi dox jëm ci mouvement bi nag mi ngi tudd ànd xeex président Macky Sall ci département bu Mbacké. xam nga loolu nag euh, beneen affaire la ñun ñëpp ñu ngi koy maase di ko ñaawlu ndax ñun tey jii euh, dakk na loo xam te lu nu métti la waaye nag euh, bu lépp wéy nag dañuy maase nag jéggalu ndax li li wax ju ñaaw bu xasee jug. ci sénégalais ak képp ku mën a doon rek am nga droit jëggalu tuub jéggalu ne lii nag lu ñaaw la kenn rafetlu ko waaye nag yërmaande ñu ngi ko ciy sakku te xam ne ku yilif ya xam ne yaa yilif yërmaande na am loolu lañ bëgg na ci yërmaande am ñu nag juguñ pour benn benn coalition juguñ pour kenn xeex président Macky Sall pour jëlee ko ci réew mi mënu tax a jóg ku nekk xam na ne réew mi metti na ba jaadootul te nag yaakaar a taxoon ñu teg fi nit jiital ko bu ñu ko jiitalee nag dem ba la ñu yaakaaroon ci moom ak la ñu bëggoon gisatuñu ko sañ nañoo taxaw ne déedéet te dafa mel ni nag gaynde gu déggul jat nag moom fu ne ngay jaar looloo tax mouvement ànd xeex président Macky Sall fépp ci réew mi départ fii ci département de Mbacké fas yéene daa daal di nag delluwaat karawaas cawaat karawaas fas yu bu baax a baax la ñu waxoon mooy déet te tubaa dafay des di wax déet la ci topp nag mooy euh, mboolem ku ñu bëggoo xëpp mbaa mu bëgg ñoo xëpp nañ xam ne maanaam tiituñu leen te ragaluñu leen ñun ay sénégalais lañ te ay taalibe lañu euh, am nañu sañ-sañ nag ndax ay citoyen lañu participer ci luy doxal suñu réew di ko jëmee kanam injustice bi ci dëkk bi ñu ngi koy ñaawlu dund gu seer gi ñu ngi koy ñaawlu jafe-jafe yi askan bi di dund ñu ngi koy ñaawlu hôpital nit ñi ñemeetuñu faa dem lan moo ko waral moo ne da waa ji jox nañu ko njël li te moo gën a dund dépasse waaye moo gën a naqari njël moom président Macky Sall kon dafa jot nag ñu taxaw seetluwaat mbir mi loola tax nag ñu fas yéene ànd ñun ñëpp xeex le président Macky Sall mu abal ñu te nag dañuy door mais 2024 la ñu jëm 2024 la ñu jëm te nag bu ñu eggee ci 2024 moom amul amatul wax ñu nag faruñu ak kii faruñu ak kële ki ñu faral mooy askan bi la ñu faral ki ñu faral mooy dëgg lañu faral xam ngeen ne 2012 ba léegi lu neexoon lu neexoon 2012 naqari na tey ñu ngi koy conseiller nag di ko ñaan bu mu jaar ci ay bakkan yu takku dugg ci pale bi ëllëg muy jaar ci ay bakkan yu takku di génn ci pale bi ñu ngi koy ñaan ci barkeb sunu sëriñ Cheikh Amadou Mountakha mu dawal yërmande ci dëkk bi dawal yërmande ci askan wi te atte dëgg te doxal yërmande ndax sëriñ bi waxoon nag ko njiit da ngay doxal yërmande kon jàmm bu amee ci dëkk bi rek moom la ci moom la lépp dépendre kon ñi ngi koy woo ñu xam ne ñun ay sénégalais lañu suñu sañ-sañ nag sañ nañoo taxaw sañ na ñoo dox sañ na ñoo wax lu ñu mën lépp danañ ko def di ñaawlu nag lépp lu nga xamante ni tamit yàq la wala muy ñaawteef ci dëkk bi ak fu mu mën a bàyyeekoo ñu ngi koy ñaawlu bu baax conseil wuñu kenn muy def naka su dul noonu waaye nag njitum réew mi ñu ngi koy woo ci mu yóbbu réew mi ci ak dal ndawi Touba nag ñu ngi leen di xamal ne leen li ñu bëggoon dem ak bërki dem moom la ñu bëggoon muy dëkk bu jëm kanam réew mu jëm kanam Touba lu fi nekk taalibe yi la Cheikh Amadou Lamine Bara yàlla yàlla yokk leeram daana ko wax lu fi ne dong yi la kenn defuluñu fi dara lu waaye def nag dang ko war a def Touba nag njëlul réew mi dépense bi Touba da cee cotisé kenn ëppaliwu ko ci kon lu fi waa taxaw ne da nga ko def daf laa war te defoo lu ca lu toll ni bëgg nañu nag waa Touba bu ñu bëggee jógee ci jafe-jafe yi ci dund gu metti gi nañu fexe ba loolu nga xamante ni mooy fas wi nekk nekk ci list boobu nga xamante ni marron la xaw ma ñu fexe ba caw koy karawaas fexe ba buum bu ñu ko seen fenn. kuréel gi nag lu tax ñu taxawal ko mooy dañoo doon ay citoyen yoo xamante ne dañoo dëkk fii ci réew mi réew mi ñor ñu yitteel ñu soxal ñu ñu am suñuy waajur ñoo xamante ne dañoo am ci ñoom yërmaane yërmaane bi ñu am ci ñoom bu ñu xëyee dañuy dem marché. bu ñu demee mars ñëpp gis nañ coono ba nga xamante ne moom lañ fay daj li waral loolu nag mooy dund gi seer gi nga xamante ne seer na ko te seer gi mu seer ar bu xëyee day gën a yokku yaakaar nit ñi di gën a tas ci ki nga xamante ne mooy jiite réew mi di Macky ndax li nga xamante ne tey askan wi taxoon na ñu amoon ci moom yaakaar ba fal ko tey jii yaakaar googu dafa tas te li tas yaakaar googu noonu tey bu yokkee diw nga ne suba xanaa dina wàññeeku suba ñëw mu gën a yokk bu yokkee ceeb nga ne ceeb dina wàññeeku bu subaa mu gën a ñëw yokk ko kon nag loolu yaakaar naa ne askan wi ñoo yëgandoo jafe-jafe yu ak metti looloo tax nag mouvement bii jug mouvement bi nag amul parti ñi nga xamante ne bokk nañ ci fu nekk te li leen tax a jug mooy euh, askan wi li leen ñor mooy ñu ànd xeex Macky sàll jëlee ko fi loolu mooy seen yitte loolu mooy seen taxawaay ndax Macky sàll dafa am loo xamante ne fàtt dafee xajul Macky Sall dafa taxaw wax ñëpp dégg ko mu ne sëriñ si ay citoyen simple lañ te loolu doonul nekk ndax sëriñ si yàlla moo leen dooleel yàlla leen yëkkati yàlla moo leen teg ba ca kaw loolu nag ku ko nanguwut mënoo ci dara loolu nag tax na ba muy jël ay kilifa diin di leen bu ndoxataal ci Cheikh Béthio la ko njëkkee woon ñëpp noppi mooy seex Béthio mi nga xamante ne dafa liggéeyal Serigne Saliou ba am ngërëmam mu jël ko dugal ko ci kasa bi ñëpp noppi ñu ne ñu ne déet mu jël mu ne da koo bëgg a toroxal te mënu koo toroxal ba mu ñëwee atte ko bëgg koo dugalaat ci kasa bi ki la Seex Béthio dem aljana fekk ji sëñ Saliou moom doon liggéeyal kon nag Macky yàgg naa toroxal ñi nga xamante ne mooy kilifa diine yi te loolu chaque jour ci loolu la nekk bi nga xamante ne moo ci mujj muy sëriñ Seex Abdou Mbacké Bara Dolly kilifa diine la di Mbacké Mbacké mu jël ko dugal ko ci kaso bi di ko torturer di ko def lu ko neex te li ko metti mooy bi ñu ko wooyee ne ko Seex du mu ne Mbacké ñu ne ko fii amul Mbacké kon na ginnaaw loolu am na dañuy wax askanu Touba askanu Mbacké ñu delloo buum ca boy boy ba nañu ko daa defee Macky Sall ñu masaanee wàññi bu ne résultat yi Touba yaa ngi nii bu ko ko gars yi joxee mu dem fatu ji ndax am lu ko metti nañu fexe ba loolu di gën di metti nañu delloo buum ca boy boy ga Macky Sall nit ñi daa def fii ar bu ñu wàññee xob yi mu jël ndaare fii ci département bi nañu fexe ba élection yi ñu jëm ñu ñu jublu ci loolu noonu li mouvement bi nag yaatu na yaatu goo xamante ne bi ñu ko taxaw léegi léegi yàggul mais ñu ngi ñuy woo fépp ci adduna bi parce que li ñuy yëg ci ay jafe li ñuy yëg ci li mettit loolu la askan wépp di yëg moo xam sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi mais ñi nga xamante ni ñu ngi ci bitti réew mi te doon ay sénégalais di liggéey di yónnee fii ndax seen i waajur fi ñoom it mbir mi yitteel nañ leen ba ne kuréel gi nii ñu ko taxawalee fii noonu lañ koy taxawalee fa ñu nekk muy France muy itali ba ci Amérique bi fépp ba ci am na ku ñu woo koo xamante ni mi nga fee ci euh, Siin noonu la ko fa bëgg a taxawalee Touba gii ti ñu nekk nii la ñu demee ci quartier yëpp fexe ba yaatal kuréel gi. noonu lañ ko fas ne defee incha allah département bi commune yi fi nekk yëpp dinañ fa dem samp fa kuréel gi ndax fu ci nañu ñu koy woo ndax biñ na ànd xeex Macky dafa mel ne feebaru màggat la fépp ay metti biñ na ànd xeex Macky rek ñëpp dawoon dawandoo ñëw raasi wu ngi ginnaaw ne ñu ngi ci yéen kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gët lii ñuy def nii doonul loo xam ne si lu nu tëjël kenn sunu buntu la képp koo xam ne si jàpp nga ne président Macky Sall gënul ci réew mi ñoo ngi lay woo ci lii ndax nag am na si ñoo xam si yëg nañ ko woote nan ku si mel ne Signor Lo woote na ku si mer ne euh, Moustapha Diouf réccu si suba ba tey mi ngi woote xam na ne lii ñoo ñoo ñoo moom ñoo koy ànd dem si ba jeex takk te fa fas yéenuñ see sal dara ndax nag dafa am ñoo xam ne si boon ko séqoog ay nit ñoo xam si danoo danoo doon nit ñoo xam si ay nit yi fitna leen lépp looy waay di def rek. pour folli Macky Sall duñ xool ne njariñul askan wi nga siy xool dangay jàpp ne yow fitna rek nga bëgg andi ci réew mi te demewul noonu ndax li nekk li nekk nitu fitna mooy tax ñun lii ñuy def nii sax ñoom danoo mujj yabal ay nit ñu ñëw jéem a xool pour ku fi déraper rek ñu mën laa tënk yóbbu ndax ñoom seen àdduna sépp jàpp na ne tënk nit ñi yóbbu rek dugal leen kaso rek mooy li leen ñor danoo bëgg ñu xam ne Sénégal tollatut foofu danoo soxla Sénégal goo xam si day développé si développement boo xam si day ànd ak jàmm ànd ak xeli nit ñi dal ànd ak fiitu nit ñi du tëf tëfi fu nu toll nit koo xam si bu tëddee si biir néegam sax wax jàpp ne dañ ko fa fenk tënk yóbbu ndax nag dafa am loo xam ne si Sénégal Sénégal Sénégal la ndax nag yàgg nañ fee dégg ñu wax ay kilifa ay kilifa taxaw fii di wax naan Sénégal nan wàññandiku bu baax a baax a baax suufu Sénégal yi ni sàcc ndax nag si leen di bay pour nit ñi mën koo jëriñoo yàgguñu ko dégg ci réew mi réew mi manqué na sécurité te jot na mu am sécurité ndax ñi ngi fi gis koo xam ne si ministre boo xam ne si dan na ko yow yaay ministre de ñun ñu jàppoon ne Touba sax xanaa ministre de l'intérieur xamul dëkk bu ñuy wax Touba ndekem moom moom bët bi mu xool dëkku Touba bi mooy fexe fee am ay cliente politique yoo xam si dañ ko mën a défendre waaye xoolul sécurité mal sécurité bi am Touba pour mu jëm see wut solution bay dugg biir Touba di recruter ay nit di fop ay millions di jox di leen jox ay oto en tant que ministre de l' intérieur ñu gën laa soxlaa leneen Touba lu dul loolu ndax nag bu ne ministre de l' intérieur ñun suñ sécurité ñu ñëpp moom la war moo ñu war a sàmmali suñu sécurité sàmmal ñu sax ñu mën a taxaw si ruq man faa dugal suñuy xaar ba sàcc duñ ko sàcc waaye kenn ñemeetu ko ndax dëkk boo xam si manque sécurité bu mat sëkk. suñu policiers yi nga xam ne si ñoo war def ay patrouille si biir Touba fu ne. boo demee si commissariat yi doo fa fekk sax ay oto yu baax yu mën a dawal di wër si biir dëkk bi muy fopp ay oto yoo xam ne si yu mel yu mucc ayib di ko di ko régler ay clientèle politique kooku nawloo na population bi nawloo wu leen ndax bu leen nawloo woon war naa veiller si population bi di bañ wut ay clientèle politique lii tax kenn ku si nekk di xeex naan ministre de l'intérieur warta bokk si benn parti looloo tax ñu di ko wax ndax man foogu moo ne ministre de l'intérieur xam na Touba ndeke moom xam na Touba dafa lijjanti li ko gën a ñor ci Touba loolu lay lijjanti waaye lijjanti population Touba pour nu mun sécurité mu doon lu ñaaw loo xam ne si ñun Touba gépp ñoo ngi koy ñaawlu di ko xam ne duggin fii mu dugg Touba moom neexuñu tey neexuñu ëllëg ndax xaare nañ ko leneen lu dul loolu ndax nag fekkee ne président Macky Sall da ko fee yebal na ne ko président foofu la moo fa war a def defuma ko fa kon bu ma fa def loolu la nga fa bëgg ay at ba ba tey mënu ko mënu ko fee am ndax man jàpp naa ne président Macky Sall bu fa boon dàllam takki daal dàllam dugg biir tuubaa gii di dugg kër par kër di leen jox kër gu si nekk mu fab milliard dugal fa ne bu élection jotee damaa bëgg ngeen wateel ma jàpp naa ne élection day passé mu ne man man lan laa def waa ndax dañ ko danoo neexul te duñu mas a neex ndax li tax neexuñu fam ñu war a teg lanu tegul mu war a teg suñu kilifa yi la fi tegul loolu daal nan ko bëgg ñu bàyyi ngu xel ne def nañu ay citoyen ordinaire ñu def ko yi boo xam ne si ordinaire sax ëpp na ci moom lu xamuñu lu mu doon vraiment wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu